mbokku téléspectateur yu global télévision jërë ngeen jëf ci teewlu bi bisimilah ci xibaaru marax bi léegi léegi ñu wax leen li ci gën a fës. li ci gën a fës nag bokk na ci tukkib nemmeeku ki nga xamante ne nag moom mooy vice président euh, bu Gambie di Mouhamed Diallo moom ak Elimaanu jëwrin ji di Ousmane Sonko euh, mi ko teeroo daal nañuy amal nag ak waxtaan yu xóot ngir rekk intérêt ñaari réew yi bokk na ci lu soxal nag mbirum forêt Casamance lu soxal wàllum énergie ak kaaraangeek napp ak yeneen daañ ci dellu ci waat ci biir jotaayu xibaar yi ngir leeral leen ko ba tey ci biir yaatal gi dinañ waxtaan ci li nga xamante ne nag moom mooy produit impropre à la consommation maanaam loo xamante ne kenn mënu ko jëfandikoo ci euh, lekk jëriñ ji nga xamante ne nag moom lañ dénk wàllum commerce di Serigne Gueye Diop ak industrie moom nag lundi ci site de décharge ba nga xamante ne nag fa la ñuy tuur mbalit ma ca Gandigal commune bu Sindia ci la def nag li nga xamante ne moom mooy euh, taalub euh, bi nga xamante ne mën nañ jàpp ne lu symbolique la lu tollook euh, juróom-ñaar téeméer ak fukk ci ay tonnes yu produit yoo xamante ne nag kenn mënu ko jëfandikoo daañ ci dellu si waat ba tey ci biir yaatal gi ci nag yokkute moom la ñuy waxtaanee nag ci biir xibaar yi ndax gis nañ ne nag prix da prix yi dafa yokk rawatina nag prix bi nga xamante ne nag moom moo soxal wàllum yàpp yàpp dafa daal di yokk mille 4400 la lay jar fi ñu toll tembe dafa jure nag 3800 yéeg bu baax dem ca 4400 looloo waral nag suñu rédaction daal di ci def ab reportage daan ngeen ko teewlu ci biir jotaayu xibaar yi léegi-léegi euh, ñu framfàcce ko leen ko doon wax nag ci bi ñuy door tukkib nemmeeku uh, Mouhamed Diallo uh, bu di vice président bu Gambie amal ak waxtaan nag uh, élimaanu jëwriñ ji di Ousmane Sonko mi ko teeru ci nag ay liggéey yoo xamante ne ay waxtaan yu yaatu la teg ci li nga xamante ne moom mooy intérêt bi soxal ñaari réew yi rawatina nag bokk na ci forêt bu Casamance maanaam àllub Casamance ak li ko wër ñu wax ci wàllum énergie ak li nga xamante ne moom mooy wàllub kaaraange ci ñaari dëkk yëpp wax wàllub euh, napp ak cadre institutionnel euh, ci digg ñaari réew yile di Sénégal ak Gambie Mansour Diassé moo ñu ci defal ak compte rendu ci nganu ñaari fan yi mu doon amal fii ci Sénégal kii di vice président wu Gambie di Mohamed Diallo sëq na ak waxtaan ak kii di premier ministre wu Sénégal di Ousmane Sonko foofu le waxtaane nañ fa lu am solo jëm ci jokkalante yu dox ci diggante ñaari réew yi foore Casamance ak lu jëm ci wàllum énergie lu jëm ci wàllum sécurité wàllum napp gi ak lii di jokkalante ci ñaari réew yi. kuy essayer dajale nag li la war a njëkk a yitteel mooy sa dëkkandoo bi la gën a jege ndax ku munul ànd ak sa dëkkandoo. munoo ànd ak ki gën a sori dëkkandoo bi gën a jege Sénégal nag defe naa mooy bi coopération bi dëgër na loolu feeñ na ci waxtaan bi dëgër na ci wàllu institution ndax mooy coopération bi gën a élaboré ci niveau cop euh, niveau institutionnel yi nga xam ne teg nañ ko kiy jiite gouvernement bu Sénégal mu ngi rafetlu yooyu la waxtaan te di ñaan ñi di autorités yi féete fale ca Gambie ñuy amal ay patrouille mixte ngir xeex lu jëm ci daggub garab gi fale ca foore bu Casamance. Euh, gis ngeen lu bëri ci communiqué conseil des su ñuy wax suñu yitte ci euh, àll bi àllu Casamance bi particulièrement nga xam ne ñu ngay dagg garab yi di yàq euh, àll bi ba nga xam ne bu ñu ci jógul rek mën na am. dina yak lu beuri fofu nak dañ ko sekk ak suñuy naataango gambi ndax ci frontière ba la motax tax waxtaan am solo parce que pour ñu mën ko régler faaw rek ñu and ci leunkelo ci ak suñu mbokk gambi ñaari njiit yi nañ tamit lu jëm ci walum énergie nga xamantene lu ama am solo la ngir suqaleku ñaari rew yi le wax nañ lu ci lu jëm ci énergie tamit rawatina électricité bi ak euh, nu ñuy échanger suñu expérience ba nga xam ni li ñu dëgmal muy beneen compact bu war a ñëw ci MCA bi ñu war koo dugal cette fois-ci muy compact régional bi ñu fexe ba ànd ceeg suñu mbokku Gàmbi mu doon loo xam ne luy euh, luy ëmb lépp la ci fàttali kii di vice président bu Gambie di Mohamed Diallo daa amal nganu ñaari fan fii ci Sénégal ngir ñu gën a dëgëral coopération bi dox diggante ñaari réew yi le di Sénégal ak Gambie. ci tukib nemmeku bobu saxa ci la ilimaanu jori njidi usman Sonko dadi profito ngir rek wax ñu maytandiku euh, bepp takaliko ci biir wo euh, ndax japp na ne euh, li nga xamantene nak mom moy ñi yewo fi ci Afrique wërngal këpp rawatin nag dëkk ñu wër dañu war bolo ngir don ben ngir rek suñu njëriñu rew ñun ñep mo gën nak ñuy takaliko wala ñuy am apa ñak deg déggoo ah, ci loolu ñu dégluwaat ko ci micro Mansour Diassé depuis l'avènement de son excellence président Bassirou Diomaye Faye. xam ngeen ne njiiti réew mi di Bassirou Diomaye Faye depuis ba mu yegsee si bopp réew mi ba léegi lépp lu muy amal jëm ci wàllum diplomatie da cee jiital li nga xam ne mooy intégration te Olof Ndiaye dafa ne béy si sa wewu tànk moo tax ñun tamit ñu gën indi ay jokkalante ak ay lënkaloo ci suñu diggante ak Gambie ndax dañoo bëgg a gën a dëgëralaat li nga xam ne mooy rataxal diggante réew yi nga xam ne ñoo sëkk li nga xam ne mooy CEDEAO ndax xam ngeen ne mbooloo mooy doole te mun a tax ñu am doole ba lépp loo xam ne songu nañ ko ñu mun cee am ndam li ni daal mooy li nga xam ne daal lu ama am solo loo xam ne njiit réew mi bokk na ci li nga xam ne ci ay objectif am la ndax xam ngeen ne xaajaloo fu mu am rek doole daf fay ñàkk lii daal mooy li nga xam ne ñun lu ama am solo ci suñu doxalin ci lépp lu ñuy jóg daal mooy dañoo bëgg ñi nga xam ne ñooy sous région bi ñu dajaloo ak ñëpp sax rawatina africain yëpp nekk benn ndax lépp loo xam ne songu nañ ko jëm ci wàllum liggéey ñu mun cee am ndam ndax daal xaajaloo bi duñu indi lenn lu mooy néewal ñu doole bu ñu bëggee am doole daal dañoo war a dajaloo gën a jàppalewaat suñu bopp balaa ñuy jàppale ñu ñuy jàppale suñu bopp loolu daal xam ngeen ne bokk na ci li nga xam ne moom la njiiti réew mi jiital depuis ba mu ñëwee si bopp réew mi ba léegi ci loolu lay yëngu ci loolu lay doxal moo waral suñu daje bii tey ndax ñu gën a dëgëralaat donte dëgëroon na ba pare sax suñu diggante ak ñi nga xamante ne ñoom ñoom ñooy waa Gàmbi ñu wax euh, ci li leen waxoon ci bi ñuy door muy euh, produit yi nga xamante ne kenn mënu ko jëfandikoo euh, ki nga xamante ne moom mooy docteur Serigne Gueye Diop di jëwriñ ji ñu dénk wàllum industrie njënd ak njaay moom nag ca lën tey ji démb ci altine ji amaloon na ab euh, li nga xamante ne moom la ñuy tuddee allumage symbolique maanaam mu nekk ki nga xamante ne moom moo njëkk taal wane ne yile produit nag taal rek moo ci euh, war euh, li nga xamante ne moom lañ fa lakk nag ci ay tonnes produits yi nga xamante ne kenn mënu ko jëfandikoo tolloon nag téeméer ak fukk ci ay tonnes mu tolloog nag lu buñ ko xaymaa rek ci suñuy koppar. juróom benn téeméer ak fukk ak ñaar ci suñuy million la tollool Khady Fall muñ ci indil ay leeral quantité bu takko ci ay e produits yu bax wala lañu tal ni ki fa la ci diwanu mbour lolu nak suñu ko wi ci suñu koppar tollu na ci juróom benn million yu taftal juróom ñaar ba tax ci lolu lay ministre bi ñu dénk wàll njënd ak njaay moom porom dollu na si ngir rek gëna mëna mën la taxawayu nguru sénégal ci ay domam ci marchandise yi nga xam mom moom lak fi nak mu nañ ci wëñu lu ëpp ñaar fukki camion yo xam amna yu ci jégué dakar ñen ñi joggé ci biir région yi fi ci sénégal li nak day wane ne li nga xamante ne mooy état bi mu ngi def liggéeyam ci mission bi nga xam ne mooy aar lépp lu jëm ci li nga xam ne moom la sénégalais yi di lekk lii nag loo xam ne nag dañ koy continuer di ko wéyal ba lépp loo xam ne produit la bu ñuy jaay boo xam ne baaxul ngir ñi lekk ko nañ def lépp ngir jël ko ba sénégalais yi duñ ko mun a jëfandikoo. ba tey ngir rek taxawu ñi di consommateur yi jëwriñ ji moom xam leen ni sax dinañ coppi façon wi ñuy taalee yi di produit yu baaxul yi bi biñ koy defee nag maa ngi wax sama service ñu xoolaat ko bu baax ndax lakk buñ koy lakk nii moom ci biir service public yi jàpp naa ne buñ jëmee ba ci kanam mun nañ kaa changer am ay feneen fi ñu koy defee foo xam ne moo gën a adéquat ndax lii nii mel euh, di ko lakk nii foo xam ne daal day indi ay gàllankoor ci parfois ci yenn ci ay nekkinu doomu aadama yi fii nañ ci waxtaan daal ak police ak gendarmerie xool feneen foo xam ne nañ ko def ngir bu lakk bi jotee ñu mën ko faa defee. ci mujjantal ba nak mi ngi woo di sénégalais yi rek ñuy la ñi nga xamanteni ni dañuy jaay ay produits yu baxul sénégalais est responsable pour justement signaler des cas de des cas de produits dont la date de péremption est dépassée des cas de produits non conformes c'est valable d'abord pour les prix mais c'est valable également produits di ku ci euh, am produit boo xam ne jàpp nga ne date bi ñu ko war euh, lekk passé na ko nga signalé ko ndax loolu day gën a yombal euh, suñu liggéey kuréel gi ëmb électricien yi fii ci euh, Sénégal nag wërngal këpp amaloon nañu ab journée boo xamante ne nag euh, dañ ko jagleel ngir rek daal di moytandiku l'accident yi nga xamante ne day am ci court-circuit euh, waaye nag daal di nag defar yenn ci ay réseau électrique yi nga xamante ne dafa daal di yàqu ci yenn milieu yi nga xamante ne ay lieu public lañ yenn ci sites bokk na ci commune bu Patte d'Oie daal dinañ koy xool biir ak euh, biti euh, bile kuréel nag li mu bëgg mooy daal di def euh, bile liggéey ci yeneen région yi fii ci Sénégal wërngal këpp Mouhamed Ahmad mi yoroon seen micro mi yoroon seen kàddu ngeen baal ma Ndella Ndiaye moo ko dékkoon micro dañu bindoon ay bataaxal jagleel ko lu mel ni mairie lu mel ni mosquée Patte lu euh, établissement public yi moom lycée Padois L'autre tax puisque association bi mu ngi juróo fii Padois deuxième mandature am ñu fal fi ñaari président président bu fi nekk tey am initiative lancé programme pour que nous soyons en appoint dimbale établissement public yi xoolaat leen seen installation électrique ñu xool lan lañ ci mën déceler comme défaut ñu corriger ko bu amul défaut nag ñu xamal leen amul défaut donc loolu moo nekkoon objectif bi mu nekk suñu première journée tey diagnostic prospection ak visite des maisons léegi loolu bu demee ba yemb fii tey dañ ko bëgg yaatal dans toutes les régions du Sénégal nga xam ne suñu membres yi nekk représentation régionale yi région bu ci nekk am nañ fa ay membres yu dul jeex donc comme tey Patte la ñu tàmbale ko fii Patte ndax association bi tambalé, dañ koy def fi nga xam ne suñu localité la ndax fi ñun Patte d'Oie gii la bon lii mooy lan mooy apporter savoir-faire indi suñu appui ak suñu xam-xam connaissance buñu am ci courant ñu tok nek doomu réew pour participer ci développement Sénégal ji dañuy am suñu connaissance ak suñu savoir faire kenn ku ci nek la nga am bo ñe indi ko au service du peuple lolu day doon li nga xamné ne ma japp ñu tabax Sénégal. lolu moy objectif association bi tay mu am ay volet de formation mu am ay mise à niveau mu am ay transfert de compétences ak recyclage yeneen électriciens yi nga xamné ne. seen liggéey yàgg na dafa vétus nan la ñuy def pour mu en phase avec la actuellement. ñu wax ci leen lu soxal nag euh, ay raaya ndax gis nañ ne duñ ne raaya sa ay diplôme la euh, SEN'EAU euh, ci colom ak fonds de financement formation professionnelle du 3FPT bii mooy ñetteelu yoon nag ñu daal di organiser li nga xamante ne cérémonie de remise de diplôme troisième promotion école des plombiers ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay plombiers nag. ñoom la ñu formé euh, ñii nag canalisateur d'eau potable lañ doon euh, gën a spécialisé wu ci diirub nag ñetti at foofu ca BTP bu Diamniadio lii nag ngir rek daal di yokk li nga xamante nag moom mooy doomu aadama yee liggéey ca Sen'Eau ngir rek bile société mën a ñoŋ teg ci nag daal yokk li nga xamante ne moom mooy liggéey bi ci xëyu ndaw yi ci loolu nag ñu déglu ki nga xamante nag moom mooy docteur Amadou Babou Ba. di directeur 3FPT ak Oscar Badji di directeur CFP euh, ci micro Aïssatou Ba euh, partenariat bi commencé 2020 ci initiative wu SED'EAU ñëw gis autorité ni leen no bëgg ben diplôme canalisateur autorité accompagne nous ci ndaw def ay jër ngeen jëf dinañ dellu si ci bile élément suñu yeneen jotaayu xibaar ñu gis ne nag euh, yokkute prix yi jéggi na dayoo yokkute nag euh, prix euh, yàpp nag moom lañ seetlu ne moom moo yokk yokk bu jéggi dayoo ndax prix bi mille 3800 la woon waaye dafa yokk jëm 4400. Euh, bi la situation nag euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaaykat seen bopp méttit lu nañ ko euh, ndax li ñu jàpp rek joxoñ ko mooy nawet bi ñu nekk ndax gis nañ ne nawet bu ñëwee yàpp dafay daal di manqué looloo waral nag ñuy laaj ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifay réew mi ñu daal di ci artu ci nu mu gën a gaawee reportage boo xamante ne nag Mame Awa defal nañu ko ñu teewlu ko fan yi ñu nekk nemmeeku nañu ab yokkute jëm ci wàllu njëgu ndawal gi fii ci Sénégal lu ni mel nag jaaxal na bu baax a baax ñi di boucher yi ci bari ci ñoom nag ñu ngi soññu gouvernement bi ngir mu mën a lijjanti bi la situation bala muy ëpp loxo ndax nemmeeku nañ itam ni nag yooyu nga xam ni daan nañ jugee ci sous région bi lu ci mel ni Mali gisatuñu leen fii ci Sénégal. da jënd fii nag 800000 wala 900000. est-ce que may dégg léegi nag bi bu nag bi da lay décaler 4000 francs 4000 francs yooyu boo boo jaay yëpp 4000 francs doo génn foo nga jaay 5000 am naa 5000 lañ jëm munoo jënd nag munoo jënd nag mun 800000. comme nag yi la ñuy war a waxal ñi am nga Sénégal bariwul nag nag yi Niger Burkina Mali foofu lay ñëw n'est-ce pas. ñii di client yi mënatuñoo jënd lu ëpp kilo ndawal lu ni mel nag jaaxal na bu baax a baax ñii di jaaykat yi. xamuñu ndaa dédouanement bi moo ko def wala wala fii foora la ñu yokk nag yi xama xamaguñu mais mais actuellement affaire bi dafa seer ci ñun dañuy jaay duñu génn client yi dañuy jënd duñu duñu kontaan ki doon jënd kilo yàpp 3800 léegi yaa ngi koy jëndee 4400 dafa différence bi dafa bëri. ñi nekk ci marché bi nag di jaaykat yi ñoom ñu ngi woo état ngir mu mën a wut ab solution ci bile situation. qu'est-ce qu'il y moo ko indi xamaguñu ko parce que euh, nguur gi moo war a moo war a dugal seen lu ko xam dédouanement bi moo ko indi wala koy jël biti réew di indi nag bi ñu ngi koy ñu ngi koy jëlee Mali Côte d'Ivoire euh, lii di yokkute bi ñu nemmeeku fan yi ci njëgum ndawal gi mu ngi bëgg a nekk am njàqare ci ñi di jaaykat yi ci noonee sax ñu ngi woo nguur gi ngir mu jug ci waaye ñii di boucher yi moom ñu ngi am ab njott bu rafet te yaakaar ni bi la situation dina daal di jeex ci fan yi di ñëw. xibaaru bitim uh, réew nag uh, ñu koy uh, dooree foofu ca Mali ñu gis ne nag ab gouvernement ba nga xamante ne 2020 ba suñu jon yàlla tey ji Euh, ñu ngi koy daal di euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, soldaar ñu ngi koy daal di diriger Ah, ki nga xamantene nak mom moy sen porte parole di le colonel Abdoulaye ah, mayga dimanche ñeenti fan ci weeru août mom nak japp na né Ukraine ak ñom ak sen digg ak Ukraine ah, jeexna tak ndax Ukraine nak bokk na ci ñi nga xamantene ñom ñoo indi défaite armée malienne ak groupe Wagner juillet bi mi baaj jeex ci combat yi nga xamantene amon nañ ko sen digg ak séparatiste ak jihadiste ya nekk ca Euh, bët gànnaaru réew ma ñu gis ne nag junte Mali mi nga xamante ne nag euh, Assimi Goïta moo ko daal di jiite 2022 ba fii ñu toll euh, dafa daal di multiplier li nga xamante ne nag moom mooy ay acte de rupture daal di nag dakkal li nga xamante ne moom moo doxoon seen digg ak France ak yeneen ci seen i opérat seen i partenaires yoo xamante ne Europe lañ nekk ngir nag concentré wu militairement ci fi nga xamante ne moom mooy réew bu Russie ñu jàll ca Bangladesh ñu gis ne nag Mouhamed Yunus nekk lauréat prix Nobel de la paix moom la ñu bëgg euh, mu falu euh, foofu loolu nga xamante ne moom mooy euh, Bangladesh ndax 2006 lañ ko tabboon li nga xamante nag moom mooy prix Nobel de la paix ki nga xamante ne moom moo ko bëgg sax ba pare daal di sooke ay manifestation moom mooy ki jiite mouvement bi nga xamante ne moom moo indi ay euh, jàmmaarloo foofu nga xamante ne nag moom mooy ca Bangladesh looloo waral nag ki nga xamante ne moom mooy premier ministre di Elimaanu Jawrin bi di Cheikh Hasina euh, moom nag daal di euh, daw ñu gis ne nag ki nga xamante ne moom moo jël réew mi fi mu ne nii moom mooy soldaar ya ñu gis ne lundi foofu ca capitale bu capitale Bangladesh gis nañ ne nag ay jàmmaarloo yu yees peq am na fa ci diggante police euh, hôpitaux yi euh, ñu gis ne nag euh, tamit lu tollook téeméer ak juróom-ñeent ci doomu aadama daal di fay ñàkk seen bakkan ba tey ci fàttali ñu gis ne ne yooyu jàmmarloo tax na euh, boobu ba léegi lu tollook ñetti téeméer ak euh, juróom ñetti juróom benn fukk ak juróom benn euh, daal nañ ci ñàkk seen bakkan weeru sulet ba léegi ñu gis ne nag lëndi bi ñu génn nag ki nga xamante ne moom ma ilimaanu jëwriñ di Cheikh Xasina nga xam ne juróom ñaar fukk ak juróom benn ci at la am daa daa daw waaye nag ci ab roppalaan la jaar di hélicoptère roplaan bu ndaw euh, ñu wax nag ci JO euh, euh, Paris moom la ñuy tëjee Cheikh Tidiane Diouf mi nga xamante ne nag moom moo battre recordu Sénégal dafa daal di yem ci demi-finale ndax Cheikh Tidiane Diouf mardi ci stade ba France moom moo jël recordu 400 euh, mètres bi nga xamantene que atout 1968 ba réussi waye nak réussirul dem final des Jeux olympiques de Paris loolu la spécial bu APS daal di xamle ñu gis ne nak bi athlète euh, yegsi na ci sixième position première série demi-finale bu 400 mètres bi ak chrono 44 secondes 94. loolu nag di ab record national euh, ci distance bile waaye nag ñu gis ne nag Amadou Gakko euh, moom moo ko raw ak 45 secondes. Euh, boobu ba léegi loo nga xamante ne nag amagul ci euh, Jeux olympiques yi 1968 euh, boobu ba léegi nga xamante ne Mexique moo ko daal di organiser ci Stade de France nag mardi Cheikh Tidiane Diouf mujj la attendre li nga xamante ne moom mooy objectif am maanaam yegg ca finalu 400 mètres yi waaye di matin gisoon nañ ne. qualifié na ci demi-finale ci épreuve bi nga xamante ne nag moom lañ duppee épreuve bu repêchage ci wetam nag Louis François Mendy dina euh, fexe moom mercredi euh, ngir rek mu valider tikem ngir dem ca finalu 110 mètres bi. Euh, ci e bi ñu tuddee nag euh, ci e bi nga xamante ne moom mooy discipline ba mu war a jongante euh, ca JO bu Paris atum 2024 mbokk yi bi xibaar sax moo buur xibaaru marax yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi di leen gërëm di leen ñaan ngeen wéyeeg suñuy programme bu 20h jotee Ouleye Fall Diouf dina fi teew ngir dégtal leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan ñu leen di ñaanal fanaanuk jàmm di jaajëfal bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp ci xarala yi ba lii lépp yemb waaye tamit di euh, jaajëfal képp koo xamante ne tamit euh, journaliste nga wala nga bokk ci rédaction bi euh, monteur yeeg ñëpp ba nga jàpp tamit ci xibaar yi ba mu yemb ñu ngi leen di jaajëfal te leen di ñaanal fanaanuk jàmm